c'est bien vraiment bravo. Tout spécialement à remercier et à féliciter le maire de Dakar, Barthélémy Toïga. Je lui disais tout à l'heure, Barthélémy Yangi Dohalde. <laughs> c'est bien vraiment bravo. Et comme, comme disait l'autre, comme disait l'autre, je dirais à ton papa Jean-Paul, qui lui est avec moi, que ton fils a bien travaillé. Merci donc au réseau, merci au réseau des acteurs et collectivités territoriales de l'économie sociale et solidaire pour la contribution à l'organisation de cette belle rencontre. Je déclare ouverte la sixième édition du Forum mondial de l'économie sociale. Un succès.

Macky Sall toog di ko tagg Barthélémy Dias di reetaan ñu ànd photo am benn complicité bi nga xam ne nii jaaxal na sénégalais yi ndax ku nekk xam ne ne Barthélémy Dias xalifa Sall lay jàppale te xalifa Sall pap Alé bi nga ko invité daf na moom dina dem ci dialogue bi te li ko intéressé mooy 2024 na bokk kon donc moom ay intérêt personnel am moo ko tax a jóg te ku nekk xam na Khalifa Sall li mu di dund mu Khalifa Sall di def déclaration de presse di joy joy metti nak dafa amone lu ko metti kon tay ji ni li daf ñuy rek Idrissa Seck après l'élection, yi bu mu mu jël deuxième Macky Sall gagné président Ousmane Sonko jël troisième ñu woté dialogue Idrissa Seck dem trahir askanu Sénégal ba tay ji ni mu ko mais nag dañuy wax président Ousmane Sonko na xoolaat entourage bu baax a baax képp kuy ñëw ne day jàppale président Ousmane Sonko wala ñu koy gis muy nekk ci côté Ousmane Sonko feeg 2024 dinañ xam bu baax a baax kan mooy kan ndax Mimi Touré génn na fi ne dialogue bi yëpp deal la entre PDS ak Macky Sall man dama ne du yem ci PDS Macky Sall mais ñoom Khalifa Sall ñoom ñëpp ci lañ bokk nax lan dañoo bëgg ñu amnésier leen ñu mën a bokk ci élection yi nga xam ne nii mu ngi ñëw ba ñu nekk di menacer Mimi Touré ba président Ousmane Sonko génne di apporter soutien Mimi Touré mais nag sénégalais yi nañ bu baax a baax a baax politiciens yu bëri seen bopp lañ fi nekkal seen intérêt personnel moo leen tax a jóg askan bi taxu leen a jóg mu doon li nga xam ne ni doon na lu ñaaw dañoo war a dépasser politiciens yi di dundee askan bi mais pas nekkal fi askan bi ndax ku mel ni Ousmane Sonko dafa jafe ci réew mi nit ki nga xam ne ni yow ñàkk nga sa poste liggéey ñàkk say droit munoo voyager. nekkoo ci jàmm ñu lay yóbbu procès di la jaabanteloo di toj sa oto empoisonné la ba nar la rey ndax lan askanu Sénégal nax lan da nga bëgg changer système bi nga xam ne nii moo fi nekk mais nag li ci kanam rawti bat lañ lañ concentré wu ne focus 2024 xam na ne président Ousmane Sonko mooy bu baax bi ñi ci des ñëpp dañuy trahir askan bi ñi ci des ñëpp ci politiciens yi nga xam ne ni ñoo fi nekkoon depuis 1960 ba léegi ci ñooñu lañ bokk